jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, su wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni fara def saa su nekk xam naa nag jëmm ji ma dalal tey namoon ngeen ko ndax gëj ngeen koo gis ci biir site bi mu di Cheikh euh, Issa Ndiaye borom jaasi ji nee naa leen suñ ko dalalee rek saa su nekk dañuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal. ndax doon na ko xam ne suñu borom dénk na ko siru yu am solo ci diggante paj ak ñaan bi nga xam ne saa su nekk mu ngi koy def suñ fa jógee am na lu mu war a loo xam ne lu solo la ci biir réew mi ndax euh, nemmeeku nañ fan ni accident yi bëri nañ ci réew mi tëli bi ba ci avion bi nga xam ne bërki démboo njaay gis ngeen ko accident bi nga xam ne def na ko am na lu mu gis nag leneen loo xam ne war na koo yaatal waaye jëmale ko aussi ci kujje langue politique bi ñi nga xam ne ŋànk nañ réew mi président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko làmb ji dox ci diggante Tapha Tine ndax daam am koo xam ne war naa génne sarax kenn ku nekk sarax yi nga xam ne su ko defee mën naa daan ku déglu tey di nga dégg révélation am solo Cheikh Issa damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah alhamdulillahi rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina mahamadi ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi xurul mayamin gannaaw buñu sant yàlla jul si yent bi salaa salaam Cheikh maa ngi lay ziar bu baax di ziare waa 221 people yëpp mhm. di wax na mën naa leen trop nag masha ñu ngi am kontaan ak mbégte bisimilah. tarkal jërëjëf Cheikh Issa ñu ngi lay fay bu baax acca comme ni ma ko waxee sama intro rek noonu lañ ko fas yéene doxale yaatal ci bu baax a baax acca gars yi nag am na luñ la nammee sa seetu kaamel bu doy waar bi nga xam ne mu ngi lëmb réew mi nga ciy def résultat ci laa bëggoon ñu ñëw yaatal ci. waaw loolu moom la. Cheikh chaque jour damay wax nit mënta def dara. <laughs> wala mu dugg si mbir te seetu. walaay ndeysaan doomu aadama lépp loo xam ne mu ngi ciy soobu mhm. wala mu ciy dugg wala mu war koo def. yoon la mu càmbar ko xool mhm. xam ndax mhm. li may dugg nii dina baax wala du baax ndax dina am mucc wala du am mucc mhm. boo xoolee tubaab yi nga xam ne tey ay nasaraan lañ lépp lu ñuy def waaw ba lañ ko def dañ koy càmbar tey bu ñu tabax kër gi wala ñu war tabax kër gi dañuy dañuy yebal architecte architecte bi ñëw xool wallaay ndeysaan pare waa def plan ñëpp lu mat cinq personnes dinañ ñëw kenn nekk xool càmbar walaay ndeysaan mhm. ak lépp lu ñu def ñoom noonu lañ koy defee waaw kon tey si wàllu baati nit fekkee dafa war a pour ñaanal la yàlla waaw te xëy na ñëw ne ko ñaanal ma rek mu bëgg laa ñaanal mhm. ñaan du gaaw sotti ah. ba nit lépp lu muy def mhm. daf ko war a seet ah. seet gu wér nag waxuma la seetu jamono bi nag waaw xam ne da ngay wax lu la wax ne ah, woon a nit ñi lii la ñuy dundee mhm. nit ñi ñoo ngi si problème nit ñi ñoo ngi si xat-xat nit ñi ah. jafe-jafe nit ñi mhm. ñàkk nañ dëkk bi na waaw cata la jàpp nangam nangam dañ daa liggéey yooyu mhm. am njëriñ li nga xam ne ñëpp a ko xam <laughs> ñëpp a la ku nekk sëriñ xam na ko ku nekkul sëriñ xam na ko lu njëkk moom jafe waaw yaa ngi dégg léegi nag man ak seet bëri na façon bu ne man xam naa ko mën naa ko allah jamono bii ñu tarkal la. waaw ah, amul nag lu ma ciy seet. du ma gis. waaw. seetal naa ci façon doomu aadama nekk. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. naa ci nit. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw ba mu allah taal otoom ñëw na solo. yaa ngi dégg tarkal la moo jamono bi nee leen man kaamil laay seete du ma seete leneen loolu kaamil seet yëpp nag mën naa waaye alxuraan si laa dellu hmm. hmm. seete tarkal la kon am na solo acca gannaaw seet bi nag ci képp koo xam ne soxla nga ko rek numéro moo neen suufu barre d'écran bi di daw acca dañuy dugg ci wàllum paj ndax doo ne paj euh, tawat yi bëri nañ waaye dinañ ci sepp lu ci mel nii laata ñu ñëw ci yenn yi rab ak euh, seetin yi ñu bëri lu bëri leen di dal doo waxee ñu ne looloo leen dugg ana nan nga ciy jëf ñu toll nii hmm. ak seet yi waaw dañoo gën a bëri. cëy lu ko waral maanaam li nga xam ne ma war a aar niñ ñi. waaw si bëri ñi dañ koo bàyyee dañ ko dañ ko baal ginnaaw. Ah, mu di lan gis nga alxuraan. Mm. képp ko fi bàyyi dem seet leneen. Mm-hmm. sa mbir day yàqu rek. Ah. nit ñi ne léegi dañoo xeeb alxuraan. waaw xeeb lépp loo xam ne alxuraan mën na koo jëriñ. Mm-hmm. dawali loo xam ne amul benn njëriñ. waaw seet seeti ñu dem si xam bi ñu ngi dem si jalang. ñu ah. ngi tur deret guddi ak bëccëg. Mm-hmm. yooyu en général day yee ay rab. di yee ay fitna. Mhm. yaa ngi dégg di yee ay seytaane. walaay ndeysaan waaye nit ñi dañoo war a moytu yu demee noonu. lu am solo. alxuraan fekk ñoo ngi koy desal ginnaaw. waaw luñ mukk ci ay tawat ak feebar yu doy waar. feebar yoo xam ne kenn du xam lan la. Mhm. ñaata nit tey ñooy feebar dem hôpital soo demee lan lañ lay wax bu ñu analyser dañ naan gisuñ dara. waaw fekk yow mi nga xam ne yaay feebar. waaw lay métti ngi sa yaram bi nekk ci di ko métti. guddi ak bëccëg lu koo gis ñu analyser duñ ko gis ko rajo duñ ko gis. waaw lépp luñ mën a def. duñ ko mën a gis. <sighs> lu waral loolu. kon loolu sayaatin yi moo koy waral ak ak xam ne mooy jinne yi. <sighs> léegi su fekkee ñoom dañoo solu doomu aadama yi. solu leen. waaw amul kenn koo xam ne am na machine boo xam ne appareil bu leen mën a gis amul. moo tax ñu bëri fi ne ñu ngi feebar feebari rab. ak feebar seetaane dara warlu ko dul ñàkk gi ñàkkal fulaal. alquran ak ñàkk set gi nga xam ne dañ ngay ñàkk set ndax doomu fekk mu ngi taxoo njàpp. te taxoo laab lay ndeysaan seytaane du a yeb waaw rab du ko yeb jinne du ko yeb mhm. moo tax nit ñi il faut ñuy taqoo laab waaye nañuy taqoo njàpp dañuy taqoo set ak sel tarkal la léegi nag tey su fekkee ne feebar yi yëpp yow daf la gaar mhm. sonal la maanaam nga dem fu nekk mënoo mënoo fexe ba wér waaw ay rab jàpp guddi boo tëddee doo mën nelaw mhm. da nga jàllal bi ko ba set wala nga koo xam ne da ngay daanu rab dafay jàpp ba ngay daanu rab di waxantu. Hmm, waaw soo ñëwee fi man ma faj ko si benn fan. macha allah waaw. boo ñëwee benn fan laa koy faj nga dem. est-ce que maam fekkee rab daf la jàpp. Hmm. wala jinne hmm. wala nit guddi jàpp la. yaa ngi dégg boo ñëwee benn fan laa koy faj nga dem su yoon. macha allah amul demal dikkal. wallaay ndeysaan ma ko joxe. tarkal la suur bi nga ñëw si laa faj. nga dem su yoon. su nekkoo fi da ngaa sori. foo mën a nekk ma protéger sama garab. waaw yónnee la ko. macha allah xam nga tey bëri na xam ne ñoo ngi defar ay garab di ko yónnee. waaw garab gi balaa départ dafay yàqu. allahu akbar waaw. ku xamul mbiri seytaane xamul mbiri rab mm-hmm. Mm-hmm. nga bëgg ne da ngay faj rab waaw ah, rawatina nga ne da ngay jël garab yónnee ko si dëkk ak dëkk mm-hmm. te yow amoo lu mën a protéger garab ah. ay kayiti ay kayiti kese ngay joxe si loolu kese waaye doos ba dem na dafa leer gaa yàq nañ ko bu yàgg tarkalla ade seytaane am na doole am na pouvoir yaa ngi dégg ñoom dañuy jàkkaarloo yow di gis li ngay li gis loo xam ne yow mënoo ko gis te xam loo xam ne mënoo ko xam moo tax ku amul baatin dëgg deg dëgg mën naa ah. faj rab mën <laughs> naa faj jinne mën yi fi dem tarkal la ay man nag sama garab bépp garab bu may joxe doomu aadama maa ngi fu mën a dem ci àdduna bi <laughs> man a garab gu mu ngoog tarkal ah, la ah. kooku mooy borom jaas ji ah. lu waay mën dee neex te mu ngi koy faj ci 24 heures acca ci merite dinañ ci ñëw dafa bëri la boo ñëwee ma faj ko nga dem sa yoon macha allah a indi loolu leer na toog ma faj ko nga dem allah akbar dégg nga dafa am supprimer mhm. benn waaw waaw ak supprimer tout man boo ñëwee supprimer tout la lay mu ngoog loolu de leer na demal dikkal fii ñuy dagg ticket chaque jour nga ñëw ñëwee daggal ticket daggal ticket daggal ticket mhm. lan ticket yi bëri ban intérêt la am chaque jour ba ñëwee dagg ticket cinq mille. waaw soo ñëwee ticket dix mille. Mhm. mu dem si ñoom jaru ko man boo ñëwee amul dagg ticket ñëwal toog nga wax sa soxla. waaw ma wax la di ma koy fajee nga ma fajal la ko si benn bis nga dem. seppi ko comme ni dégg tarkal loolu laay def. waaye demal dikkal aw ma jot boobu. mu ko acca Cheikh mhm. dama ñëw ci tànk yi nga xam ne dañuy metti ak wàllum rhumatisme mhm. loolu it bëgg naa ñu waxtaanee ko. waaw waaw tey fekkee koo xam ne. dafa chaque jour wala tànk yoo xam ne day lakk. wala tànk yoo xam ne dafay karamp. waaw xam nga yooyu dafa bëri. waaw dafa bëri ñii rhumatisme la. ñii naan arthrose la. waaw ñii naan li nga xam mooy nerf sciatique. te yooyu dafa sonal jaamu yàlla yi. jamono ndeysaan. ñu koy jàmbat trop sax. dañuy dem hôpital guddi ak bëccëg. waaw dafa yu te mënta wér. man nag yàlla may na ma ci loo xam ne. waaw alhamdulilah rabbil alamin sànq am na maire bu fi dugg. keroog ba mu fi njëkk a ñëw. a moog jëkkëram ñoo ànd. Ah. barki alxuraanul karim tarkal la dañuy ñoo ngi ko fekk fii si suuf mu tëdd jëkk ji di bës yaram bi ah, waaw day sàmm bitit te ba muy ñëw moo yéegal macha allah dañ yéegal <laughs> waaw ba muy ñëw moo yéegal boppam <laughs> tawfiix dëgg nga waaw a ngi nii moom may woo jotuma waaw waaye keroog bi mu njëkkee ñëw <laughs> ah. la wér macha allah tey mu ñëw fi jël si rendez-vous ak ñeen ak lu mu doon àjjuma moo tax waaw waaw waaye su fekkoon boo ñëwee da nga fekk façon doomu aadama bu nekk wala ndeysaan waaw kon tànk lu métti métti métti ma la joxee gis nga garab bii nii waaw yëkkatil gaa yi gis ko garab bii nii mu ngoog de su a la joxee garab bii nga jël ko bi uhuh. garab bii soo ko jëlee waaw tàngal ndox di ko naan si uhuh. journée bi ñetti yoon waaw bi lu mu métti métti ak lu muy tàng tàng tàng tàng tàng uhuh. soo ko jëlee si bis bi rek da ngay gis ne day commencé wàcc par kudd rek def par kudd gu moom ngay def si un litre ndox di ko naan si journée bi boo ko defee maanaam balaa sase jeex da ngay gis ne da ngay wér complètement waaw da ngay continuer di ko naan ba mu jeex tàkk léegi am na benn diw boo xam ne moo ciy diw su fekkee euh, arthrose la. waaw wala mu nekk rhumatisme. Mhm. wala mu nekk li nga xam mooy nerf sciatique. waaw benn diw boo xam moom la lay jox. Mhm. si nga koy diw. anam wala danga boobu da ngay bàyyi ku ñëw rek gis ko. diw bi nag moo ngi si biir. waaw mu nekk loo xam ne lu ñuy wane. lu ñuy wane la waaw mu ngoog. loolu koy defaree. si mhm. rabu àll lay nekk. wala ndeysaan. waaw bëgguma wax rabu àll bi. waaw rabu àll lay nekk. suñu paree dinaa la ko wan nga nga foto ko yéenewaale ko dégg nga. macha allah léegi rhumatisme. waaw daf koy faj. arthrose daf koy faj. nerf sciatique daf koy faj macha allah dégg feebar yooyu yëpp waaw feebaru yax yax lu métti métti <laughs> hmm. soo jëlee garab gi soo ko naanee rek mu tane loolu de leer na waaw macha allah loolu am na jërëjëf acca mënuñu waxtaan ba pare jàll ci leneen wax léegi tey ba tey waaw ñi nga xam ne am ndoxu siti ndoxu siti boo xam ne a hmm. a doy hmm. a de sasi bi boo ko jëlee moom di ko di ko naan suba ngoon midi mhm. incha allah ndoxu siti bi lu mu yàgg-yàgg si yow mhm. koy faj ba mu dañ macha allah waaw waaw kon ndeka ñëpp wuti si cabinet Cheikh Issa nag fala mu koog de yow mën lool mën mhm. nag ñuy wax si pirate waaye cabinet Cheikh Issa taalibi Baay pour mu leer soo ñëwee fii dinga ko ay yaa dégg yëpp ku ndoxu si di sonal ba nga xam ne sa yaram day tàng waaw sa di dagg yaa ngi dégg doo mën a def dara di okkatu guddi ak bëccëg waaw lii moo koy dindi dégg nga mu ngoog la ñu ndoxum sutee saxal dina jëm ci néew kattan wala léegi nag néew kattan nag moo lëmbee dëkk bi waaw nit ñi sonn nañ de mhm. fi ne soxna yi seen mer mu bëri mi dara warlu ko lañ day sonn gars yi ñoo amatul doole mhm. gars yi ñoo amatul kattan waaw waaw ndaxte kattan di koy maye mhm. loolu fi mu ne yombatul dangay gis ndaw loo xam nekk ndaw takk am problème mu kattan waaw dangay ah. dégg doy na waar nga gis pa boo xam ne day nekk pa am 70 ans. waaw teewul mu ngi am kattan. walaay ndeysaan mooy problème jaaxal nañ ñi de. léegi famille moo bëri. Mhm. ak ñi nga xam ne dañuy fooye seen bopp. Ah. dem ba si yàgg seen awra yi am problème. Mhm. wala seen sa sëddi am problème wala seen mën yu dem ba yàqu. waaw te yu bu yàqoo nit ki mënta am kattan pour mën a sëy normal. Mhm. léegi nag bii. waaw moo lay may kattan pour nga sëy. macha allah mu ngoog de. su fekkee da bëgg maam di sëy lu yàgg. waaw bii ngay naan tey siir bii di ko naan. tey mu kooku soo ko jëlee di ko naan. <laughs> Mhm. sa sëy dina yàgg. waaw te ndoxu mën yi dina normal. su fekkoon walax jaani dafa dem ba dee. Mhm. bii moo koy dundalaat. macha allah dégg kon képp koo xam ne. da nga am problème mu sëy. mu ngoog de kay sëy di gaaw a yàgg. Mhm. bii ngay jël tay sit bi tay sit bi tarkal la ñëpp xàmmee nag nii la mel. ay dégg. mu ngoog bëri na nag ñu nekk si biir internet bi jël samay vidéo. di ko taf taf yeneen photo. tarkal la taf yeneen numéro. dina woo Cheikh Issa ñu ne waaw. Hmm. ñi naan mu ngoog ñu xàmmee ko cabinet bi nga ko mën a amee macha allah ko amee feneen kon mu ngoog acca bu baax bi mu ngi noonu ci cabinet Cheikh Issa Ndiaye borom jaas yi hmm. acca foo bëgg a dugg gis nga bii ma yore nii yëkkatil gaa yi gis ko mu ngoog bii ma yore nii hmm. mooy lan la ñi am kattan ñi nga xam ne seen awra dafa dem ba dellu waaw dem ba tuuti sew ruuj tuuti waaw yaa moo koy faj bu dee dafa ndaw wala mu tuuti. wala mu dellu. bu mel ne awra xale. da koy yokk ci diw boo ko diyee ñetti fan. waaw da ngay gis ne day ñëwaat normal. macha allah ah, lii xam-xam la. wallaay ndeysaan lu wér. da gaa yi jàpp kër gi rek dëbb kër gi jox nit ñi ak cox. <laughs> waaw kay. <laughs> <laughs> yooyu yéeme na loolu acca acca am na leneen lu may gis wala da nga koy bàyyi mu seet gis nga lem bii waaw lem lañ ko defee bas bi lem la waaw lem ak leneen la de waaw kattan si lay dox mhm. ak faj koo ne dafa néew kattan ba jeexal takk macha allah kattanam jeex mhm. mënatul dara waaw moom bii moo koy faj tarkal la bii soo ko jëlee insha allahu rabbi waaw booy naan rek mhm. départ mu gook puus mu tàkk mu <laughs> leer jërëjëf yëf yaa ngi bii ma yore nii waaw xam nga jabar ñu bëri dañoo foog ne. waaw amul gàncax yi ko mën a faj am na gàncax yi yu ko faj. Ah, kay bii juróom-ñaari gàncax la yoo xam ne dañu ko lan lay faj. Oh. jabet rek lay faj. macha fajul leneen. est-ce que. jabet kese lay faj. ndeysaan lépp a ngi ci garab yi. lépp a ngi nii. waaw. yaa ngi dégg. wala baw lépp mu ngi ci gàncax yi. yaa ngi dégg garabu tubaab yi ñuy baax naa trop. waaye am na lu ko gën a baax. garab yoo xam chaque jour da nga naan te doo wér. waaw walay waxati ko de bii nag mu ngoog de. Mhm. tarkal la. acca kon ñu doxal jërëjëf kooku mooy Cheikh Issa Ndiaye borom jaas ji nee naa leen bagage yu baax yi ñu ngi fii lu bari ngi ci cabinet bi nag ngeen di am ay tawat su ngeen ñëwee jëflanteek moom seen xol dina sedd guy acca Cheikh Issa ñëwal ma ci wàllum kaar jëm ji léegi nag wut kaarange bu am solo dafa baax waaw kaarange mhm. fii boo ñëwee man mën naa jox kaarange boo xam ne waaw soo ko jëlee mhm. ku la waaw amul sax demal dikkal mhm. liggéey dee ku la liggéey dee ku dem ci sëriñ joxe ah. sa tur dootu ko fekkee moo xam nañ lay fas moo xam nañ lay sëf moo xam nañ lay takk lu ñu ko mën a defee mhm. ku la liggéey day de loolu lu wér la waaw waaw secret man maa ngi koy jaale si kay sa jamakin cëy kay fa sa jamakin mhm. képp ku ko dégg waaw dégg xam nga ne lii secret bu doy waar la xam nga ne kaaraange kese lay dox waaw soo ko amee ku la liggéey faatu ku la liggéey du di yegg si si yow ku la liggéey mu dellu ci kaw waaw yaa ngi dégg mhm. te aussi maanaam cat du la jàpp mhm. yaa ngi dégg liggéey mënu laa jàpp macha allah aussi kenn mënu fexeel ba loolu mooy kaaraange mhm. kenn mënu laa tëj kaso waaw waaw allah yaa ngi dégg dafa leer ah, lu tax may kay fa sa jame kin la pour yàlla baax la am juróom ah, na juróom-ñaari doom it nag doom bu si njëkk may kas la woon yaxlasoon fax kalaboon sakkaaloon jàmm makkaloon kalaw ah. yooyu nag mooy ay doom doomi kay fa sa jame ko xew si jame doom yooyu mhm. am na lim muñ koy bind lim yooyu boo ko ci bindee waaw boole ko xay juróom ñaari taatu xay xay yoo xam ne ñu ngi séenante benn bu si nekk nga dem dagg fa xas fa boo xasee ba pare mhm. jël pusa daal di fa càpp jël sarax bi nga war a sarax sotti si si suufu garab gi waaw daal di xas yaa dégg boo xasee ba pare boolante yooyu yëpp gàllaaj am na def ko ni nga ko war a def mhm. jëfandikoo ko bisu talaata daate si guddi nga koy jëfandikoo soo koy sangoo mhm. fa nga koy sangoo du tàkk lampe du tàkk la lëndëm dara dafay lëndëm tërës nga sangoo barki alquranu karim ku lu liggéey ci suuf lay def macha allah loolay gàllaaj ku dem di la liggéey mhm. di taxaw si bàmmeelam allah akbar ko kon kuy liggéey nit da ngay xaru mu ngoog am nañ ci benn kaaraange boo xam ne mhm. ñoo ngi defee sorte baraatu waaw lan baraatu luy lool baraatu ci <sighs> alxuraan ah, la alxuraan mooy mm-hmm. saar wi nga xam amul bisimilah rahmaani rahim tey ñëw rek benn saar rek moomul bisimilah rahmaani mooy baraatu nekk 129 aya allah akbar aya la ci mm-hmm. kaaraange rek lay dox tey chiffre ba toll na de koo xam nekk si benn euh, place liggéeykaay mm-hmm. jiite mbooloo mu bëree bëri Ah, tey boo jiitee mbooloo ñii dañuy dem di la liggéey <laughs> mhm. ñuy joxe seen tur fii mhm. ñuy joxe fii ñuy joxe fii wala ndeysaan dem di la liggéey mhm. yow doo si xam dara waaw ah, waaw yaa dégg léegi su fekkee da ngaa mbooloo waaw wala nga nekk société bu mag ñu lay xeex guddi ak bëccëg waaw nga bëgg ku la loo ni def mu dellu si kawam léegi da ngay jëfandikoo baraat ah. da ngay wut ginaar boo xam ne ginaar bu ñuul la ginaar ko ñuul ginaar bu ñuul waaw moom ngay wut rendi ko jël dara ji dékk ko waaw wut maam cent vingt neuf xalimba xalimba ko si nekk nga bindee allah akbar tey soo paree nga damm li nga xam ne mooy catu xalimba yëpp lakk ko ba mu nekk doom <laughs> yaa ngi dégg nga sotti ko si saafara tarkal la te ci der ji ngay càpp waaw ci der ji ngay càpp mooy doon daa bi mooy nekk daa soo paree nag daa saafara boobu waaw da ngay wàqi benn pax ba mu xóot mhm. nga suul ko allah akbar suul ko ñetti xam-xam mhm. see ñetti fan génne ko boo koy sangoo nga yéeg si kaw karab sangoo ko ku la liggéey wàcc loolu de na ku la laal wàcc walaay <laughs> ndeysaan ku jóg ci yow rek day xaru lépp kenn du ko wax sax. loolu de leer na. lépp kenn du ko wax. Uhuh. leer na naañ jërëjëf acca kon euh, dañu ñëw ci noob. Hmm. nee naa gars yi nag kuy noob mën na koo bàyyi ak yow. Hmm. li nga yor ci xeeti noob te bu nekk euh, soo ko defalee nit mu ne gongo. man ba euh, sëriñ yoo xam ne dañuy noob seen jabar na. <laughs> te de sëñ bi. barki alxuraani karim. <laughs> cey ñaata nit ñoo wax ne sama jabar sëriñ la. Uhuh. yéeme na kon baal noob. noob nee naa la mooy xam-xam bi gën a néew. bi nga xam ne tey képp kuy ndongub daara. Mhm. jaar si daara. waaw wala jaar si lasaar. li nga mhm. njëkk xam mooy noob. man ko loolu nag. Mhm. léegi nag bëri na ñoo xam ne dañuy noob fii ba ilaa ne duñu mas a jàpp dara. <sighs> xamuñu ñu noobee. noob ay façon la. waaw ci liggéey loolu garaaw nag. bismillah koy wane tey daa mel ni bëgg ngaa won gaa ñu gis tey de tarkat la. nga may leen ko. waaw xaatimu jaamiu bi. Mhm. bi duggee 62. Mhm. bisimilah yaa ngi dégg. Mhm. boo defee nii. waaw ah, waaw xaatim bi dafa doy waar. ku mën defal de nii la de maa la ko wax de. naw bu 3 la. tarkal la. waaw moom 3 jours lay am. day ah, jàpp force. laa tàqale sa jëkkër. di tàqale sa jabar. waaw bëgg ngeen boolawaat. waaw xaatim ñetti yoon. benn bi mu takk ko <laughs> mhm. benn bi mu suul mhm. mhm. diggante day neexaat waaw waaw mënta ba diggante bi du neex macha allah moo xam tubaab la moo xam naar la moo xam nit ku ñuul la ngoog de waaw waaw pare ñu won leen ko ñu gis ko te du yàgg lu ngoog de macha allah cay xam-xam mhm. wan leen ko waaw ah, mu ngi nii de xaatim baa ngi bu ko xam la sax da xam ne xaatim bi wallaay ndeysaan xaatim mu doy waar la si boole ay nit waaye mën de waaye mën de yomb teqale seen diggante mënu mhm. nekk si jàmm waaw wala nga am sa jabar mu xëy xëy dem nga am sa jëkkër mu xëy xëy dem waaw nga bëgg mu retourné waat ñëw waaw lii nga koy defal ñetti fan jàmm da ci am tarkal la allah benn ngoog mu ngoog mhm. waaw waaw noo koy def waaw mu ngoog ak li nga ci war a wér du lépp na wax fii léegi bismillah fas gii nga gis ma yore nii waaw wan leen ko de micro waaw laalal micro bi nga xam ne dañuy bañ wujj micro bi jigéen ñi nga xam ne dañuy bañ wujj mhm. fas gi dañuy yor fas gi da ngay takk ñetti fan nga tekk ko sëf ko boo ko takkee ñetti fan ah. da ngay tekki sëf yaa ngi yàq soo ko takkee doo am wujj mhm. bii laa yow mi dini mukk loolu ci liggéey du doy fekkee la hmm. wala nekk di doxaan guddi ak bëccëg waaw def ko dina réglé loo laaj nañ la ko jox. tarkallah ngi dégg. cey fu ñu jëm. ba tey fas gi. Hmm. ni muy jàppee euh, góor noonu lay jàppee jigéen ah. Ah. su fekkee jigéen yoo xam ne mooy dafa dëgër bopp. waaw su ko jëkkër a wax mu bañ. Uh-huh. dañ koy fas fii. naar dañ koy fas fii su lañ koy fi fas. tarkallah ñetti fan lay am. mu ngoog la boo ko takkee ñetti fan da koy teg sa. macha allah mu départ. loolu de leer na nag dégg nga. waxtaan te ñëwuñu ci wàllum fay wax. waaw fay wax loolu it gars yi miin nañ la ci. fay wax loolu la it faalu kalaam. Uh-huh. irfaalu kalaam dañ ko tuddee. waaw yàggu rek am na kilifa gu mag. Mhm. bàyyi ko ci réew mu sori ñëw fii. waaw am coow la rëy a rëy. Mhm. ko defar damaa defar li may defar ba pare. ànd ak mhm. moom. walaay ndeysaan. ànd ak ba ci biir dex gi. waaw ma gas ba mu xóot taal safara si mu tàkk. tarkalla safara yi ba mu tàkkee ba nga tàkk na ba xonk cor. mu jël saafara si sotti ci. allah daal di sotti. balaa saxar see génne nga gaaw suul. <sighs> <laughs> dëgg si nga jël sa tànk bi dëgg ci pax mi wax li ngay wax waaw wax jooju moom bi laa yow mi tiit kenn du ko yëkkati kenn du ko ngaangati tarkalla ku ko ngaanga am problème lay maa la ko ku ko lii xam-xam la baatin la du ay caaxaan dégg loolu la ñuy it faalu kalaam may fay wax mhm. fay wax na di ko tax a jóg mooy as gor nga nekk as gor yoreel xaalis bu bëree bëri bëri bëri mhm. bëgg koo fay te mënoo ko fay mhm. mu bëgg laa yóbbu police tëj la wala mu bëgg laa jaay doole waaw léegi loo ci man yaa ngi dégg dangay dem seeti borom baatin ne ko dimbali ma. wallaahi ndeysaan cooli fay. Mhm. bu cooli fay ma lijjanti dem fay sama xaa fay xaalis bi. Mhm. loolu koo xam ne daal na la boo ñëwee ma lijjanti ko. macha allah yaa ngi dégg wala nga am jafe-jafe comme lu mel ni wàllu suuf seeg. wàllu nangam ak nangam ak yu demee mhm. noonu. waaw képp ku ci am problème boo xam ne la jaaxal. yaa ngi dégg boo ñëwee ma fay cooli. barkallah waaye nag. duma farle ku nekk ci ay tappale. lu am solo nag mu ko. daa leer. Mhm. ku nekk kee tappale wala ab dileer. waaw duma ko far ren. <laughs> kon bu ko mu ko loolu de leer na moom. xam ne as la kilifa la. Mhm. na suturaam xawee ko. waaw bu ñëwee ma dimbale ko. macha allah waaye ku loolu. Mhm. duma man duma duma lu ma laqab sàcc. mu ko ko jërëjëf am na solo. acca dama jëm ci jaaro yi jaaro yi bëri nañ nag. waaye sa secret jaaro yi. leneen la beneen affaire la waaw. leer Souleymane waaw mu ngoog bu Souleymane. man jaaro Souleymane bi laay defar mu ngoog. jaar yi ñeneen ñuy defar jaar wuuteeg jaar ñoo xam seen i jaar mu ngoog de man nag mulku Souleymane laa yore <gasps> ma nekk nii mu ngoog de tarkal la mulku Souleymane laa yore ku bëgg am alal waaw bëgg am xaalis xam ne xaalis moom doo tàggoog moom guddeeg ba da nga koy am waaw bii ngay jël mulku Souleymane bii macha allah maa ko defar wallaay da ngay dégg dafa am xaatim bu ñu koy daggal muy xaatimu Souleymane waaw bi nga xam ne juróom ñaari kër la am ñaari bunt waaw xam na juróom ñaari rawaan yaa ngi dégg yaa ngi dégg yooyu dañ koy dagal mhm. boole ko yi ñu ko war a booleel waaw ak yow sa tur ak sa tur yaay mhm. def ko si jaaro bi loolu mooy tax jaaro bi mën a dox waaye xëy xëy dem sëriñ ne ko jaaro bëgg muy roñ benn jaaro jox la nga takk wóor loolu du doxal jaaro takk pour aar jaaro melul noonu mhm. jaaro lu secret lu doy waar la yaa ngi dégg jaaro yéntu yàlla Suleymaan ku jàng taarix xam nga ne jaaro boobu jaaro bu doy waar la waaw ba nga jinne ji sàccee gis nga nu mu demee woon yaa ngi dégg mhm. si yéen di yàlla bi mu yoree jaaro bi wallaay ndeysaan ba jinne ji ñëw sàcc jaaroom ba dem jinne mhm. ji mujj am pouvoir moom <laughs> waaw waaw moo tax jaaro bi yaa ngi dégg mujj moom bu xëyee mhm. day dem si tefesu géej ga ndeysaan xëy dem toog si tefesu géej gi toog nappkat bu ñu nappee ba ñëw mu jàppale leen macha waaw yaa ngi dégg bu leen jàppale ñu may ko ñaari jën mu lekk benn benn mu saraxe ko waaw di def noonu <laughs> eh, bu bis ñëw yàlla fekke ne bu bis ñëw jinne ji jinne ji bi mu toogee foofu ba sonn. am gaay am benn waay boo amoon xam-xam si ñoom. waaw xaasib bun barqiya mhm. dafa amoon xam-xam. wallaay ndeysaan. bi mu toogee si bi mu wala wax ay waxam di jàng ay waxam di jàng yaasin di jàng kam zóor yaasin. Mhm. di jàng di jàng ba si yàgg jine je géné wu. Mhm. daay tëbtëre daay daw ba mu jiyee ba mu dawee jël jaaro bi si bi mu ko sànnee si biir géej gi. waaw benn jën daal di wan na jaaro bi. ba wan na jaaro bi fekk yéen di yàlla Suleymaan mu ngi si tefes ga. yaa ngi dégg ba gaal gi teer gaa yi jox ko jën waaw mu daal di butti benn jën rek di lakk rek daal di gis jaare bi takkaat ko bi mu ko takkaat di pouvoir bi daal di ñëwaat <laughs> secret booba nag ba léegi mu ngi dox macha allah doxewut na na a nag comme yunti yàlla Souleymane mu doxewoon ci moom mm-hmm. doxewut noonu moo taxoon yunti yàlla Souleymane yilifoon mm-hmm. léppam waaw yilifoon janaaw mm-hmm. rabi àll yi xaj yi bëy yi lépp la yilifoon lenn lu si nekk rek daf ci am maanaam armée da ko mayoon loolu. waaw yaa ngi dégg xam-xam boobu. <laughs> Mhm. léegi mu ngi dox. mu ngi fi wallay ndeysaan. Mhm. ku ko xam ak. waaw ku ko xamul moo fi nekk. waaw ak ku ko attan ak ku ko attanul. Mhm. man mii ci waxee am na si loo xam ne attanu ma ko man. tarkal la. waaw na leer. waaw jaaro. dafa am bëri na tool yi bëri na ci kenn ku si di wax jaaro jaaro. elanti ko tey. ñu toog di def imtihaan waaw xam-xamu jaaro. man li ma ci xam du ma ko wax. déedéet du ma si xam si wàllu jaara mhm. maanaam du ma ko wax maanaam si biir ay émission yi demee ne waaye ku si ñëw toog nga toog ma toog waaw ma liggéey lu day waar si jaara ngay gis dafa leer nga xam ne man mhm. jaara yu may defar du jaara ay xale waaw mu bokk du jaara caaxaan dañ mhm. bàyyi caaxaan yi benn waay sama benn waay ñëw na wër takk jaaro mu ne si jaaro bi dara neeku ci mu ne sëriñ diw ma ma ko jox mu ne ko nañ ko daj su fekkee ne xam na lu baax lu ci nekk waaw ma fay la su fekkee dara nekku ci ne du ma la fay ñu dajju ko fekk suuf. allah suuf lañ laxas def ko ci. te loolu bëri na ci ñoo xam ne tey ñu ngi takk jaar yoo xam ne dara nekku ci. yéeme nañ yàlla ay kayit yu suna la ñuy laxas dugal ci. te jaar yi ne ko ma. xoolal ma lay rek man jaar yi may defar. yii yëpp am na borom instant bi yii nga gis nii yëpp dafa am borom. Hmm. waaw mu ko jërëjëf hmm? kon am na solo. dina ñëw ci wàllum këyit ndax duñ mënuñoo waxtaan ba pare te ñëwuñu këyit te saa su nekk nit ñi dañ ci yëngatu. di ci mm-hmm. lu rawatina mm-hmm. ñi nga xam ne ñu nga ma it. Mm-hmm. waaw waaw wàllu këyit. <coughs> chaque jour la ma si wax lu bari. këyit ñaar laa ciy ñaanee. waaw mën naa koo ñaan ci kurus. aussi dama koy ñaan maanaam ci wàllu mbind. Ah. waaye jamono bii ñu toll nag ci kurus laa ci gën a ñaan ak. macha allah. damay def li may def ba pare woola yow mi moom kayit yi waaw nga woo sa waajur mu dem saraxel la hmm. wala yow nga saraxal ko sa bopp waaye man du ma génneel kenn saraxam na leer nañ hmm. waaye li may liggéey maa koy liggéey su ma liggéey ba pare hmm. wax la yow nga dem saraxe li nga war a saraxe ah. sa waajur yi wala yow sa jéem bopp nga génnee sa sarax macha allah soo ko defee du yàgg nga jot say kayit tarkal waaye si sart si fekkee déposé nga waaw nga toog sa nga déposé woo dara bëgg am kayit waaw ah, day yéeme ah da ngay sonal nit ñi dina doy war lool fekkee déposé boo ma wooyee man soo ko déposé daal ku ko récité doy wàcc. wàcc liggéey waaw récité wàcc. caa tët tët ndax li ma yor moo diis. waaw mhm. mu goog. acca ñëwal ma laata ñuy jeexal ndax mënuñoo waxtaan ba pare te ñëw li nga xam ne yaa ngi ko def jaarale ko ci ubbi. waaw moom Samsul Bilaat laa ci liggéey Samsul Bilaat. Mhm. laay liggéey si Bayre. Bayre kenn du ko bëgg. te te jaaroo si Samsul Bilaat. Samsul Bilaat xaqiqatan laa wax dafa am. Mhm. waxuma Samsul Bilaat foo bi nga xam ne gars yi dañ koy daggal ay xaatim déedéet samsul bilaal xaqiqatan dafa am waaw bi nga xam ne dafa ànd ak tur yaag mhm. ànd ak xuddaam yi ak rawaan yaag yëpp mhm. ak saraxam ya man moom lay liggéey samsul bilaal boobu gone di ko li gone di ko sangoo gone ko sangoo ñu tëj la kaso ndax bayre boobu barki alxuraanu karim waaw gone gu ko sangoo dañ lay tëj kaso mhm. man moom lay liggéey su fekkee wàllu ubbeeku am nañ ci lu waar loo xam ne boo ko sangoo si bis bi juróom-ñaari yoon si bis bi kenn mënu laa turee ubbeeku laa wax loolu de leer maam juróom-ñaareel nga koy sangoo si bis bi. boo ko mhm. sangoo kenn mënta dox si sa diggante ak ubbeeku. tarkalla. maa ngi dégg ba tey am na secret bu ñuy wax fatxan. Mhm. boo ko sangoo mooy kenn mën naa la kenn mën laa tere ubbeeku. macha allah boo ko sangoo te ubbeeku ko nga bay ji. xam ne dootoo amati. <laughs> waxati ko jërëjëf barke alxuraan karim. <laughs> loolu de leer na moom. fatxan ku ko jëfandikoo te amoo ubbeeku laa wax. <laughs> waaw dama nga xool ab tool. di fa bay. Mhm. pour loo lekk. <laughs> jërëjëf nit mënatu ñaar ñaan nga ubbeeku. wallaay ndeysaan. fa la ubbeeku yem. mu ngoog eh? jërëjëf leer na jërëjëf Cheikh Issa Ndiaye borom xam-xam. Eh, yooyu yëpp mu ngi fi ah. Mhm. waaw tarkalla kon mu ngoog. Mm. ñu jeexal. acca kon jërëjëf loolu mm. leer na kooku mooy Cheikh Issa Ndiaye borom jaasi ji acca lépp nag mu wér ko ci xam-xam nii lañ koy bëggee saa su nekk mm. ah. Mm-hmm. accident yi jamono ji léegi bëri na de ñu naan ci télé ba lay yem mu ñëw ba ci avion yi. waaw lan moo dugg ci réew mi lu xew lan ngeen gis. moo ne ci kaw gi rek. tey. li nekk ci jëli bi. moo nekk ci moo nekk ci moo nekk ci moo euh, ci ci géej lii de doy na waar fi mu ne fan yëpp yaa ngi dégg maanaam accident yi. waaw am ci jëli bi. waaw nit ñi di dee. Mhm. accident yi commencé na di am si jaww ji. waaw waaye nag géej gi nañ ci bàyyi. foofu it nañ sóoraale. lii maa la ko wax moor yu bëri dana am. fan yii daal waaw lu xew moor yu bëri dana am te du yàgg. ah lii doy mooy jinne yi. jinne yi rek jinne yi ci dëkk bi. waaw nu ñuy def jinne yi moom ñu ngi faagaagal de leen sarax te jinne yu bari yoo xam ne dañoo daw ñëw dañoo dugg si dëkk bi <laughs> yaa ngi dégg waaw aussi gis nga aéroport bi fu mu nekk nii dafa am ay kuy junne yoo xam ne dañu faa dëkkoon te kuy junne yi dëkk fa mm. dañ leen a war a saraxal <laughs> tey su fekkee kuy junne dañoo dëkk si bërëb te xëy na ñëw jëlee leen seen place day xaw metti de boo xëy na jëlee leen fa mm. da nga am ñoo xam ne leen fa bàyyi te ñoo xam ne seen xol du baax <sighs> ñoo ñooy lijjanti mbir mi te jinne kenn du laal xalalam loolu la ñoom président yi nga koy dégg. sarax bu ñu war a génne. génne kenn du laal xalalam. kon ah, dëkk bii. Hmm. nañ ko génneel sarax. waaw ba façon sarax wala. non sarax yi daal du ma wax gaa yi dañu wootee rek. sarax yi du ma ah. ma wax la ko man nag bokkuma si ñi nga xam ne ñaan ma génne sarax déedéet. Hmm. waaye ku woo si ñoom. ne ma sarax nangam man la saraxal lii ak ak lii. Hmm. buñ ko saraxee jàmm am. lii si sama wàll man ko def. tarkalla. la ngi dégg. waaw li si sama wàll dinaa ko def. waaye nañ bàyyi xel ne géej gii. dana lekk ren ay nit ñu bëree bëri. ay waay waxoo jàmm de. nañ ko bàyyi xel lii maa la ko wax. mu ko ko. yi. waaw dana gën a bëri buñ si jógul. waaw gis nga avion bii doon avion bii doon. Mm, dem décoller am problème. waaw yàllaa ci def sutura. walaay ndeysaan. yàlla ci def sutura de waaye kon mënoon naa gën a ñaaw. mënoon naa gën a ñaaw mu ko. Ah, lan nga wax ci président gën a def dolli ay ñaan. ci dëkk bi. def ay sarax. waaw ngir yàlla def jàmb ci dëkk bi ah. senegal ñun ñoo ko moom. ñoo wax président Bassirou Diomaye Faye ak ministre bi Ousmane Sonko. waaw euh, li ma koy wax mooy. na dimbale jaamu yàlla yi rek. Ah. nu mu gën a gaawee daal. pour dimbale xettali jaamu yàlla yi. rek bëgg nañ ndaxte senegal nit ñi sonn nañ. waaw ki xam na si ay coono dañ jugee ko. waaw lu bëri. dëkk bi luubal bëri. Bassirou Diomaye Faye nag moo ngi si yoon wu baax wi mhm. président Ousmane Sonko moo ngi si yoon wu baax wi mhm. kon nañ gaaw am Pastef mhm. yaa ngi dee gaaw dimbali jaam yàlla yi nit ñi son nañ ñi nga xam ne ñoo lekk xalali jàmbur ñu fexe lijjanti loolu delloo ko ci dëkk bi am na solo yaa ngi dégg ñi suufi jàmbur it nañ gaaw fexe delloowaat suufi jàmbur yi man loolu laay ñaan tarkalla yaa ngi dégg waaw bu ko defee ñu ñaanal ko moom it yàlla may ko jàmm may ko wér may ko tal may ko kattan waaye may ko wërsëg Mhm. te nag am na wërsëg de. kan Bassirou Diomaye Faye. Ah. am na wërsëg kan koo xam ne bi mu jëlee réew mi. waaw rek gis nga ko yàlla ji dafa niis affaire yi sedd guy. ndeysaan am muy tekkale. te loolu day am lu muy wund. am na lu muy wund. ci tey su fekkoon ak wàllu yàlla moo génnee mhm. bi kii dafa baax de. ci ndeysaan ba mu génnee àdduna nangam ak nangam. Mhm. kon moom dafa jël réew mi rek. waaw yàlla ji commencé sedd. <laughs> dafa jël réew mi rek. affaire yi commencé tijjeeku géej gi xamutoon jën waaw <laughs> jën yi tàmbali nañ fi mu ne. tàmbali nañ de. waaw da ngay toog sa néeg sax boo wàllu jën ñëw fekk la. <laughs> ne. gis nga naan. ah. néew terrain bi di ñëw. waaw mooy dàq. <laughs> baykat yi kee bu dem baye ji. walaay ndeysaan. Ah, billaay walaay jël nañ ci matuwaay de. kee dem baye ji laa mhm. mbay mi dina neex de. ren. waaw ku bay di nga xam dara. macha allah. xam nga Basir Mamadou Basir. waaw may mooy mbég mi. mbég ah, mi moo ñëw. Ah. moo tax ñoo ngi ñaan yàlla may ko jàmm. Mhm. defal ko jàmm defal ko sutura defal ko tawféex may ko wér. tërkal baax a baax a ñu ànd doxal. waaw man gëm naa ne dina liggéey. te gars yi naan affaire séparation moom loolu. gisoo séparation lan ñaar ñu ay gor lañ. ñaari gor bu ñu àndee séparation du du si am. wallaay ndeysaan. Ousmane Sonko ak Diomaye Faye ñaari mm-hmm. ñaari gor yu ànd lañ. Mm-hmm. su fekkee ne benn gor mu ànd ak benn jàmm mhm. yàgg yàgg day am waaye ñaari gor ñoo ànd ba mhm. muy métti ñu ànd walaay ndeysaan ba muy neex ñu ànd ba léegi yëguñu sax politique daa graw fiir de politique de moom waaye ba léegi waaw kenn xamul ne mhm. mu ngi na mel la na mel la mel dem ba barki dem ma ñaay nga gis ko muy fubal waaw dem si terrain ba walaay ndeysaan kon loolu ak daal bu soppeekoo xamal ne ah lu soppeeku ci moom dafa nekkutoon. Mhm. lu wér. atia mënuñoo waxtaan ba pare te ñëwoon ci làmb ji fi ne nii nag coow. Mm. xaw ma kan nga ci gisal sarax boo xam ne soo ko ko waxee dina daan wala kan moo gën a taxaw ci guddi yi ñu nekk nii mais coow li bëri na bala ta guddi yi ñu toll bi micro bi. guddi yi ñu toll nii mm. ah, de. Ah, te gis nga làmb dafa doyoon waaye làmb ngi dekki. <laughs> xam nga bëri émission bi passé wax naa ko gars yi. ndeysaan ma gars yi laajee. Mhm. ma leen ah li ngeen foog am de. ama mii ko jàpp dafa nekk gone. waaw wala ko jàpp dafa jeexal. waaw ama jeexalagut de. waaw wane waat na am ma waaw jeexalagut te bu góorgóorloo sax dana dem ba jëlaat roi des arènes bi tee ko ci loxoom. déggu de. déggoo ma bu góorgóorloo mu ama seen. waaw gëm boppam fi mu teg tànkam ni boo ko teggut. waaw roi bi da koy jëlaat ci loxoom tee ko. tarkalla ko téye door a bàyyi bari. Mhm. waaye ñaar ñi ngi ma laaj. waaw muy tafatin. waaw ak Balla Gaye. ca ca combat bi. combat boobu du yomb de. <laughs> yéeme na de en bi nag jolli naa jamono bi. waaw mystique bu tàng jër moo ci am. buñ gis ak buñ gisut fi ne nii. mystique bu tàng jër moo ci am man xam naa si dara. waaw. lu ma xam dara la waaw yow kay xam naa si lu leer nañ. ndeysaan mystique bu jool na jamono bi. te képp koo xam ne jege na si mbër yooyu noonu. ba amul gàllaaj sax da <sighs> seen gàllaaj gi dafa doy jamono bi ñu toll Balla Gaye. waaw. Balla. Hmm. na dem defarwaat bu baax. Balla. waaw lu xew noonu. na defarwaat. xam naa li ma wax. defaruwaat ma na defaru ba na defaruwaat bu baax des na am na lu hmm. des ci moom. du mystique côté yaram wi la wala. mystique la. Ah. Ah? Hmm. kon tafaa du question li ko daanoon mooy ñëwaat rek jaar fa nga jaar. Ah, defaat ko na defaruwaat. lii maa la ko wax. tey am naa ci mbër nag ñoom. waaw xam nañ sama mbër. waaye man su ma soñoon Balla na defaru. ñoom ñaar ci ñoom ñaar waaw. ah kon xanaa du Balla mi ngay yéene kay nañ ko demal ji gën a. defaruwaat bu baax <laughs> ba muy teel. sinon du ko. jógut rek du baax. yàlla baax na maa ngi ñaan ñoom ñaar yëpp yàlla may leen jàmm làmb ji ba jege si na nga ñëw ma wax la kan mooy daan mhm. tarkal la waaw ba làmb ji jege see mhm. ma la diw mooy daan mhm. waaye Balla moom na dem defaru ji déggoo waaye jamono bii sama waa ji na dem defaru ji jërëjëf yaa ngi dégg waaye nag si làmb ji jege ma ne la diw mooy daan waaw loolu de leer na moom diw mooy daan a aca ci lan ngay tàggatoo tey waa ñu ñu sant yàlla bu baax di nuyu jaamu yàlla yëpp. Mm-hmm. di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. seen liggéey bi rafet na. Mm-hmm. sell na set na. ay jàmbaar ngeen ay nit ñu baax ngeen wax dëgg fi yàlla ñoo ngi lay ñaanal seen site bi yàlla dem ba nekk tele bu mag a mag a mag a mag. amiin amiin àdduna bi yëpp di ko si daan. amiin in uridu ila islaha mastataxtu ma tawfiq ila billahi tawakkaltu wa ilayhi unib. jërëjëf Baye Niass jërëjëf.